nu na ma leen mbokku auditeurs yi ne leen kiis ma jukkil leen li gën a fees ci ëttu yëglekaay ginnaaw ba ko juge bi dégloo démb ci àllarba gi Bamba Fall toppatuñ ko ci mbaram toj yàq tas ak li nga xam te ne mooy assassinat wal fajit yéene kaay moo xëyee loolu lan la maire Médina bi wax ba juge bi bàyyi ko yéene kaay groupe Futurs Médias bi ne yan na mbir bi yëpp kii di Ousmane Tanor Dieng laas ne Bamba Fall daa weddi lépp ba mu set ba pare di ñaan li nga xam te ne mooy bàyyi bàyyi ndëgandigu yëral Le Quotidien yéene kaay mi jël Cheikh Seck loxo ci poos ak vote huis clos budget bi maire Ndindi bi xam le ne maire bi ma ngay tëbal ñi nga xam te ne ñoom ñooy askan ba foofeere yéene kaay yi ak presse bi maanaam ñoo nekkoon conseil municipal yi enquête yéene kaay ak jëwriñ ji fi jiite woon gouvernement bi Abdoul Mbaye yéene bi ne tàng na de bay bàyyi di yaakaar ne ak ñaawlu ne justice bi dañ leen di utiliser ci ay mbiru politique doy na waar waaye lu jëm ci train express régional bi Abdoul mbay ne loolu lu baax la waaye du mën a gaawee noonu ndax nombre de gares yi ak distance bi moo ko waral waaye luy wóor daal mooy catastrophe économique la maanaam ab njomme économique la ba tey bu ñu sukkandikoo ci Mbaye nee dafa yaakaar rek mooy loolu waaye su ñemee ne opposition bi yépp mënuñu booloo ci coalition bi ma xool wàllum courant tàkkal laas yéene kaay di jox kàddu ki xam te Matar Cissé di directeur général u Senelec bi muy yaatal leeral xóotal ne société nationale d'électricité réalisé na maanaam def na fi bénéfice su fukk ak juróomi milliards maanaam 15 milliards ci benn chiffre d'affaires bu ëpp ñetti téeméeri milliards maanaam trois milliards ba tey yéene kaay bi ne entreprise bi di Senelec am na réserve bu baax bu ñaar téeméeri mégawatt maanaam 200 mégawatt waaye kañ lañ koy wàññi laas yéene kaay ne dix pour cent yi danañ ko wàññi ci facture yii di ñëw soxla nañ ko lool ndax DG Senelec bi nee na lépp plan yeesal bi moo ko waral ginnaaw ba plan tàkkal bi tàkkee te yokku nañ ci lu tolloo ko juróom ñetti téeméer ak ñeent fukki milliards maanaam huit ci diggante ba te fekk si na ñaat téeméer ak fanweeri milliards maanaam deux ci kàddu DG Mamadou Makhtar Cissé le témoin xëy ci violence bu bëri bi ñu ràññee ci banlieue bi ak bi nee bi ak ndol bi moko waral motax jeune yi di ñëññi ma tukki war li xew ci yeneen dëkk ak libération ak autorité libérienne nee autorité libérienne bi ñuy ñaan Interpol ngir am lu leer ci mbirum Aspen 7 ci turu navire pavillon Sénégal depuis le 3 février ndax autorité libérienne yi am lu ñu soupçonné ci mbir momo waye direct info né président mer ci marché bi dox ci digënté agence d'électrification l'électrification ASER ak Mina distribution ci liggéey bi ñu amal ci lu mat téeméeri village ndax biñu ñu ci journal bi Mina distribution en na ci lu mat 24 milliards ba tay amaguñ ci dara lu leen leer ma ñëwaat ci réew mi ak Vox Populi ci mbiru radiothérapie bu dantek ba paan ñu amal ci benn bu conseil national boy dox ci mbir boobu ngir mën a càmbar mbir mi gën problème bi mën a le soleil national ci conseil des ministres bi ak jàng bi président Macky Sall di gouvernement bi ngir ñu gën a mën a ci décision gën a mën a saytuwaat njàng bu bi gën a décision day leer ma tàggat sama yaram ak sunu la CAN signé waat na ca ki war a jël galon kay mooy US Gorée stade yéene kaay ne quarante ko tegal ginnaaw bu jàllee ci préliminaire yi waaye Mamadou Lamine Cissé démissionné na fii ci fédération sénégalaise bi ñamu maasal jamono ñëpp bàyyi nañ ko fii de dem nañ express sunu lamb ne ginnaaw Yékini Baboy Tyson ak Zallo ñi bàyyi dem express b la dernier mooy kan ndogalu yàlla la ubbi seen nopp ngeen déglu ma ma waxati ngeen déggati loxo dara darati gémmiñ lii Linguère la xewee fii ci Sénégal ndaw si Khady Ndiaye la tudd da doon xeex ak jabaru rakk ji Ndeye Niang laaj leen ma lu mu def ndànk rek dafa matt tuñu suufu ndaw si ba ndaw si am incapacité temporaire bu 21 jours yéena ma ngay xam li ci topp ma nga cour suprême ñuy jugé daw naa wasalaam